مخافى محمدي رسولا وعبدا للكريم المكرم من ارتاب في كون المخافى محمدي رسولا وعبدا للكريم المكرم المصطفى مرسل إلى جميع الورى عبدا رسولا لمكرمين فمن يا بدين المصطفى يا الخنار من له الحلق ربا وايدا خير منعمين فمن شك في كون المخفى رسوله فلا شك في إخراجي من تنومي فمن شك في كون المخفى رسوله فلا شك في إخراجي من تنومي asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk jullit ñi ak mbokk taalibe yi ñoo ngi nekk fii Touba Fall Mbuxeex di dëkku sëriñ Touba dëkk bu mu sancloo Serigne ñoo Seynou Fall boole kook Cheikh Massamba ñoo ngi ziar mbokk jullit ñi ak mbokk taalibe yi fi nekk yépp di jiital ci nuyo bi dan Fall ak Serigne Modou Fall mi jëwriñam di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay euh, moom mi nga xamante ni si tey jii nii mooy xalifa alaaji Ndaama Fall bu leen gisee fii ma taxaw mooy barab bi barab bi ñu denc alaaji Ndaama fi lañ denc alaaji Ndaama ak sëñ Waseenu mi nga xamante ni si moo moo sanc dëkk bi ak maam Tafa mi doonoon xalifam ñun ñëpp yàlla suñu borom def ñu wàcc liggéey ñu denc leen fii si barab bi tey jii nii nag boo leen gisee ñu ñëw ba fii taxaw di wax. ngir bëgg nit ñi nga xamante ne si ñoo ngi dégg Touba Fall ko ñu xam liggéey bi nga xamante ne si moom la suñu mag yu baax doon def ñoo ngi fii ci barab bi wala kooku mu taxoog jumaa ji jumaa yi Touba Fall Mbuxeex ji nga xam ni alaaji Ndaama moo ko fi taxawal liggéey bi sëñ Mouhamadan ak sëñ du nekk ci ba mu àgg fii mu toll di di leen ñaanal suñu boroom may leen eh, ak wér ak kàttan bañ àggale ko barki seexul xadim di soññaat ndaw yi nga xamante ne si ñoo dëkk ci dëkk bi ñëpp di waa Touba Fall mu xeex ngir ñu gën a góorgóorlu ndax tey jii nii boo leen gisee liggéey bu rafet bi Alaaji Ndaama Fall liggéey fi def ko ci dëkk bi di Touba Fall mu xeex lii képp ku ko xool war na laa soññ ba tax ngay góor góorgóorlu loolu nag yàlla suñu borom def ne ñun ñi nga xamante ne si ñooy ay gone nekk ci ci ci ci famille bi dëkk fii ci dëkk bi taxawal daayira ngir fa yéene liggéey boobu jàppale leen si tegu ci siraatal mustaqim ak di def lu baax ak di dundal lam suñu maam yi daan dundal di ñaanit ñëpp ñaanu ñu suñu borom dimbali ñu bañ matali ko jàmm ak jàmm ak salaam barke Seexul Xadim xam naa li si des danañ ko àggali bu soobu yàlla ci guddi gi. wasalaamualeykum wa rahmatullah faman ya badina al mustafa ya al xanaara man lawal xalqu rabban waidan xayra munhimi faman shakka fi kawnil muxafa rasulahu فلا شك في إخراجي من تنومي فمن شك في كون المخفى رسوله فلا شك في إخراجي من تنومي من ارتاب في كون محمدي رسولا وعبدا للكريم المكرم من ارتاب في كون المخافى محمدي رسولا وعبدا للكريم المكرم مرسل إلى جميع الورى عبدا رسولا لمكرمين فمن يا بدين المصطفى يا الخنار من له الحلق ربا وايدا خير منعمين وأنشأك في كون مخفى رسوله فلا شك في إخراجي من تنومي فمن شك في كون مخفى رسوله فلا شك في إخراجي من تنومي sëriñ Bassirou Mbacke maa ngi lay nuyu di la siyaare di la jox sa wàccuwaay yaag daayira bi nga àndal li nga may laaj nag ci cosaanal dëkk bi wala tuddi ko cosaan araab yi naan ko taarix tubaab yi ni fondateur penc mii moom di Touba Fall Mboxeex sëriñ Ousseynou Fall rakki maam Ablaye Fall moo deman ci sëriñ bu mag bu fekki ko Jolof ba ànd ak moom ñëw njaareem ba mu wàcce ko yebal ko fii ni ko boori mee na ko sanc tudde ko Touba santale ko sew sant loolu moom téere du ko dindi bi yàlla dogalee dëkk bi ne fi ba maam Ousseynou jóge fi nag eh, gannaawu kilifa day am jeexital ginnaaw kilifa day am jeexital jeexital mooy eh, mbooloo mi xaw a wàññiku xaw a wàññiku xaw a wàññiku ba dëkk bi mën nga ni ñetti kër rek moo fi des ñetti buntu kër bi fi ñetti buntu kër desee ci gàttal rek ci quatre-vingt soixante-dix-neuf quatre-vingt quatre-vingt-trois mag ñi waxtaan ba bëgg a yóbbu dëkk bi ci ba ngir mbëggum ndox bi ko alaaji Moodu mun yegee man mii lañ ci yónni bàyyam mbay faal moo ma ci yónni rek bàyyal saan baa ko waxee mu ni mag ña moom kenn wër a dem bàyyi leen fa ndox jaru ko nañ laxasaay rek te yaakaar yàlla nañ ma xaar 83 la 84 bi bi mu ñëwee waxtaan ak mag des man te lim na mu am ci yéene yàlla far ko ci décembre 84 mu ñëw andi siomètre liiñe dëkk bi dagg kër yi dagg jumaa ji jàkka ji la jëkk a dagg teg ci kër sëñ Tuubaa teg ci rawlu bi maam Ousseynou tudd ba ñett yooyu taxawee lu ne am màndarga mu ne nañ ci teg kër sëñ Tuubaa di ñaari néeg décembre 84 la loolu tàmbali jàkka jii nu ne nga xëy ne mooy jumaa ji léegi bii ndaamay ñëw sàkkati xat la yenti per yu ñu sofale kaare ko amul xadd amul pentre amul raax waaye yéeneem ju baax mu daal taxawal jàkka ji tabax ko bam mu dëppoog jamono soññ ma ngi ci jaamu yàlla teggiwul tànkam teggiwul tànkam teggiwul tànkam ba dëkk bi agsi fii mu agsi tey nga xam ne damay wax ni ca boobee ca décembre 84 soo toogan fukki kilo ceeb juróom boo wóotewul mën na am lu yàqu ndax doo am nit ñu ko lekk te tey fii nu taxaw di wax ci 2021 boo sooree cent kilo ceeb di ko séddale fasoo sa kanam boole cee ful la ñëpp du lekk kon fi ko alaaji fekk ak fi mu ko indi diggante boobu moo jar yéem ndax dàcc xañ na fi découragé xañ na fi rékki xañ na fi te sànq xam ngeen ne benn bu neex amu ci yëpp day ànd ak jafe-jafe ak rek sunu borom di la nattu xool ba xam li ngay wax foo ci toll waaye moom lim nekkan da koo gëm loolu dëkkul dëkkul ba lépp ndox mi courant bi fajukaay lépp am ci dëkk bi tund wii su fekkente woon ni état dafay fay naar bi xorom si moom day am médaille boo xam ni d'honneur lay doon ndax wàllu santé lim ci jokkale fii jottali ko ci askan wi ba askan wi xam luy santé di faju wallahi taalaahi gannaaw yàlla du gouvernement du politicien du kenn moom la ak laxasaayam ndax moo fi taxawal poste bi en 88 wutal ko ay cas de santé benn ca Ngaaxam benn ca Ndombil benn ca Sanc Buna Bandang léegi fu ne poste santé nga fa door am ay cas de santé kon mën naa ni moom diggante 88 ba 2000 euh, ba 2000 di 2000 bi muy nelaw ba 2000 bi muy nelaw mën naa ni wàllu santé bi li ci avancé moom nit falu na ba folli ko te mënoo koo def nga xam ni yaatu na ci lépp ginnaaw yàlla moom la ndox mi courant bi lu ci mën a doon bu ko wërsëgam indiwul tànkam ak loxoom ko indi ginnaaw yàlla seq ko kenn moom dafa xat man li ma bëgg a wax bëgguma koo sorxo sorxo xam naa ni daal altine la fi xëyee bu naaj nu dëgmal tabaski talaata àllarba di tabaski tele dab ko bi mu wàccee liggéey altine la del siwaat suba la màggalu Daaru Xudoos ca quatre heures dëkk bépp tund wépp sa ngeem ngeen xam ni jàmbaar lislaam wàcc na moom jàmbaar lislaam wàcc na dégg naa ko la am na lu ko ci ump xam sañu ñoo wax waaye ab cër la ko sunu borom jox boo xam ne daraja joxuma fu mu toll te li may wax teguma ko ci bakkan ay firnde yi wér laa ci am lu sama jëm woyaf woyof njabootam yàlla def na dañu ma ñime doy loo ma wax ma ni ma sama wàcc na Modou Mbacke ma jëkka woo foo ne ma ni Touba Fall mu ne foo ne ma ni Touba Fall mun sama ja wàcc na ma ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dan wool ma boppam wax ma ni ma waxal ma ko sama tante waaye de ñoo ngi waxtaan ak kilifa yi sant Touba dëkk Touba sant Mbacke bu ñu juboo ci li ñuy wax dañ ñuy fekk si fii nu denc ko fii mu amoon yéene di ko yàqale man yàlla ko yàlla def. altine keroog jooju Touba Fall sëngeem nañu tund wi sëngeem nañu wuute naag altine jëm fi xëyee di ñibbi Ndakaaru julli ji tabaski li tax man nag borom mbir la altine la fi xëyee dem Ndakaaru altine la wàccu ci del si Touba Fall boo ci xool rek muy bisu yonent bi sallallahu alayhi tey jii di altine di bisu yonent bi di gàmm gi nga xëy moom ñëpp xam na ni place am amul wutaat loolu ay ay cër la yoo xam ne dafa laaj settantal dama koy tënk noonu pour ngeen xam ni su fekkante woon ni temps am na eh, ñi may laaj benn benn ci laaj yi gën a mën a wax loo xam ni lépp étape par étape lay doon te dara du ci mën a dend gannaaw man lii daa koo dund li ci des mag ñi ko fekke ñoo ma ne bis sàngam ba weer sàngam ci la nangam xew nit nag mag na ma ndax Cheikh Mbaye ak nitoo mooy sama xalifa moo ma ci mag ndax mu daal naa maa ma seeni timis la nelaw kaneen wax ma la neen kaneen wax ma la neen kon man yi may wax day am firnde li ma fekkee saabu na du ma ko du ma ko wax alaaji ndaama soon bi maam ci dëkk bi na xam ni way juram man at mi ma ganee jamono la moom dëkk bi ñeent fukki at ak benn baal saan moom na ko dëkk cinquante ba ba ba ba quatre vingt onze la quatre vingt la Baye Sane nelaw Baye Mbaye Fall moom ko benn at képp quatre vingt onze quatre vingt douze mu nelaw waaye ñeent fukki at yeeg benn rakam la ko dénk muy Baye Mbaye Fall kon ndaama dëkkum maamam bu maamam sanc baayam yilif ko ñeent fukki at rakk baayam yilif ko benn moom la développé di ko développé ba quatre vingt douze lu dëkk bu diine di am ci teraangay addina dëkk bi yàlla jox ko ko 92 lañ inauguré ndox courant bii dawaa Alsaan Jaali Njaay Assane Diop ministère de la santé à l'époque 2000 lañ naan ndox mii nga xam ne ci Sénégal fukki village yu am mu ni mel xaw ma ko ci qualité bi poste de santé bi 88 Cheikh Mbaye Diop mii ñu tuddee Cheikh Jenn ci kër baay Salim mbay gii moo fi jëkk a judd ministère bu ñu wax Trestine moo may alaaji Ndaama de d'État bu tudd Jibi Diallo sage-femme bi fi njëkk a ñëw Marie Sarr moo nekk ministère de la santé moo ko may Alaaji Ndaama bi Alassane Diallo Ndiaye nekk ministère développement industriel ci loxoom la sottee yooyu dégguma ko daa ko fekk Alaaji Ndaama nag man damay ñaan ci yàlla yàlla na xippi àjjana yàlla na xippi àjjana damay wax jurunu yarunu waaye bari na ko am jom bari na ko am xel mu rafet ci moom nga roy man mii su may wax yow te wax sama dëgg rek samay wajur ñoo ma jur yar ma waaye bari na ku ma dégg baa nga xam ma ginnaaw yàlla yàlla nga ko jaarale ci alaaji ndaama xamul fu sama xam-xam toll xamul fu sama xel toll 92 la ma jëkk a dëpp micro scène nationale maag alaaj jaaji mbay ak ñen toogalan ci plateau ba keroo xëccoo na maag Ablaye Lam ndax dama li ngay wax di nga ko bind man ko du ko bind man falaa dëkk su ma iñaanul ba bëgg a wàññi la fa ne bëgguma wax saraa ba yokk fa lu fa nekkul man lu may lu may lu may làmbatu nekkul ci diggante bi gan mii bañ a juum mooy bind li muy wax ba du dérape waaye ginnaaw fi laa juddoo bu ma iñaan dabul baa bëgg a wàññi la fa ne baa bëggumaa wax loo xam li bakkan rek laa xooy ku ñëw ne anamu man du ma bind li may wax ñu xaccoo ci ndaama xelam xawuta daal gars yi ne bay ba bàyyi ko rek kii ñi mel ne fi mu jëm waaye sunu borom yàlla mi nga xëy mooy dogal nag dogal na 92 ba léegi bi ma alaaji ndaama tegee loxo jox ma kàddu yàlla ak may suturaalandi tund wii kër ku ma fiy loo jàppal ginaa ginnaaw yàlla ndaama nga gis ma waxloo ma te waxuma njaaxum rek nga ñemee ma waaye tund wi kese mosuñu maa joxe micro di ma wax looy soxla di ma wax looy xalaat baa ñu di ma wax looy soxla Cheikh Arama ngi nii toog mooy xalifa bi mooy borom dëkk bi xam na ni man li ma wax 92 bi ñu inauguré courant bi lañ ma jëkk a jox micro Cheikh maam saye lée mu ba sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Mamadan Jobbe moom la kër sëñ Mamadan yabalan ndax boo sëñ Mamadou Diop mooy xalifa bi te ndaama lu mu gëm-gëm sëñ Touba sëñ ma Samba mooy buntam ci kër sëñ Touba yemalewu ko a amul frontière nag ci lislaam sunna lay dund kër gum dem nga deeni rek fa la féete loolu daal loolu daal comme waxtu wi daa jige sëñ Bas dama lay ñaan ma tënk ko foofu bañ am jitaay bu yaatu boo xam ne li ma wax daa koy mën a rassembler di ko rassembler di par étape ba nga xëy ne day nekk seede wala mu nekk saa ba mu nekk saaru marché nga xam ne carrière alaaji ndaama damay wax li ma ci xam mu mel ni ab marché yu moom de bëgg yàllaam ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ak alxuraan nangu na ci tëkkale waaye nangu ci dendale kaami li ñu doon jàng ci bis bii saa bu gàmm gi ñëwee moo ko ci gën a ñor lu ci dolli ko door cee dolli ko mën na cee def ñaqam ba mu jeex tàkk bépp xeetu teraanga bu ñuy teral doomu mën na ko jox ko jàngal te tund wi xam ko